léegi yàlla loola dogal man gëm naa yàlla xam naa yàlla ma ko joxoon te jëlaat na ci dara yaay Omar. waaw maa yaayu Omar. xam naa du neex waaye lan nga mën wax ci sa ji. Omar sama caat xamewu ma lulul, lu dul jàng école ñëw ñibbi si tëdd ci lalam ba ni ma amee jax saaw la ñu nekkoon ba yi si magam. ñu jóge caaroy toxu dem ma dem Tivaouane Pël ma demee Tivaouane Pël moo mu ne maa ngi nekk sama kër bàjjan ndax moo ma gën a jege damay damay xëy di liggéeyi ma ne ko waa loolu de baax na ba ni mu takkee jabar mu ci kër bàjjanam bii xame ko sàcc xame wuñ ko pen xame ko leen xam nga luñ ko xamee liggéey julli xëy dem liggéey ñibbisi toog ci néegu bàjjanam moom lañ ko xamee ak ànd xaritam yi ba ni muy mariage moo ak ñoo ànd ak doomi bàjjenam ñoo ànd di ko def man maa nga tiwaawoon pël toog yëpp seen loxo ko teg xëy na nag yàlla moom ñëw na ñëw na yàlla ñëw na te fu ne la koy jaarale mën naa bu deewul woon nii dina dee neneen te kon lay gën a ñaaw léegi yàlla loola dogal man gëm naa yàlla xam naa yàlla ma ko joxoon te jëlaat na ko mënuma ci dara nag waaw day metti mais maa ko jur sama xarit la woon na mooy sama caat mm-hmm. képp ku musoon a xeex xeex moom ma xeex yow ku ko mere ma mere la ba ci magam yi mu bokkal ndey baay ku ci ko ci dóor ma mere la. waaw ah, léegi na loolu yàlla dogal yàlla nag doom lu mu dogal mën mënu ma si dara xëy na dégg fii la ko yàlla jaarale woon am na jeex na nañ muñ rek muñ rek ci jàpp ci yàlla man de foofu laa ko teg waaw. moom mën naa ne ñoo bokk deret sax benn deret bi la benn famille bi la mhm. sama frère euh, lu mu mën a wax daal nit ku baax la. ku baax la maa moom ñoo doon fanaan néeg bii avant boobu ñu doon fanaan néegam bële man Sébikotane laa dëkk ma jóge amee bac man ñëw Dakar fii nii ma ñu voilà chaque weekend par exemple fii laay ñëw sama kër la sama kër famille fii laay ñëw on a beaucoup partagé ensemble lépp lañ doon partagé mais bi ma yégee nouvelle bi j'étais meurtri billaay wal kitaab tellement il était intelligent moom lu mu mënul defar amul grand technicien en tout cas euh, métti na ko. ci lan la doon yëngu ci lan la doon yëngu ak euh, ndax euh, bi ngeen di mujjee waxtaan sentir loo dara par rapport ak li nga xam ne nag moom mooy moom moo doxul ci li nga xam ne nag moom mooy activité am. moom bac série T la def. technicien la c'est un technicien. à lycée Limamou Laye fii la amee bagam. bu mu amee bagam après mu dem Bambey. def voilà trois ans après mu ñibbisi fii nii peut-être ay problème tax mu mu ñibbisi fii bàyyi bàyyi jàng peut-être peut-être bon dona na yëngu si ay commerce non. Pas parce que bu ma woowee récemment dafa ne woon day def ay commerce di dem côté Guinée di ñëw doon la ma wax woon na ma récemment di ma ko wax voilà bu ma koy encouragé sax voilà loolu mais en tout cas métti na trop daal métti na te nit ku nit ku baax la woon vraiment voilà loolu daal laa amoon lu ma wax voilà c'était un jeune ambitieux bi nga xam ne nag euh, bac et surtout bac euh, technique bi ngeen di wax ni amna oui amna amna am na bac am na bac technique peut-être mën na nekk ay frustration loolu yëpp mën na nekk mais en tout cas c'était un jeune ambitieux un grand technicien lu mu mënul defar amul gars yi fa laajal gars yi lépp loo ko jox mu defar ko lépp loo ko jox mun na ko defar waaw waaw c'est une perte daal mu du ma ne pour famille bi yëpp pour mais pour toute la nation même perte la parce que talent bi mu am bu ko exploité woon vraiment gëm naa ne voilà lu ñu àgg quoi 好了。